xeexante la ci diggante abu zaydin ak doomam fekk na sax du meroo dëgg dëgg dëgg waaye naqaadi ji ba jëlee ci moom dara rekk la mu ko xaskan ci dëkk bu ñuy wax maaratu noomaan yi maaratu noomaan abul ala almaari foofu la juddoo dafa wax ne dafa xabal doom ji pusa doom ji dal di ko xëtt te nag joxut ko fay bi. Hmm? ah ndey toujours ji wax ne moom pour garante pusa bi waaye góor gi dafa bëgg sonnale fekk na yooyu yëpp duu ko waaye naxante ba jële ci xarit ji dara rek kalaat waaye du jotee dëgg-dëgg mu ne axbara xam le na alxaarisu xaaris ibnu hammaam hmm. xaaris mooy xamle hmm. qaal mu ne raaytu gisoon naa min ajabi zaman ci kéemaani jamono yi hmm. an taqaddama bu jiitu al xasmaani ñaari way xuloo ila qadi maabati noomaan jëm ci qadi dëkk bu wax maabatun noomaan benn dëkk la ci saam noomaan benn gaa ñoo dañoo jotee kalaame ante ci xaad yi dëkk boobu ñuy wax maa rëtu noomaan ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar xad zahaba dem na min wu ci moom alal yabaani ñaari way tey yi mooy kenn ki ak ndawam jeex na alal yabaani ñaari yu neex yi ñenn ñu assahmu wa ne bon ak ngune ñenn ñu ne al aklu wal jimaa ñenn moo ci am waaye kenn ki daal ak ndawam ji am wal axaru keneen ki kaan bu rafet la bu nekk ci digg taaram ñaar ñooyu ñëw kalaame am fa qaala wax a seyxu góor gi xëy na moo ko mooy ki kalaame mooy njëkk moo ne ayada allahu alqaadi ba mu àgg hmm. ayada yàlla na dëgëral allahu yàlla alqaadi ya qaadi ji hmm. kama ayada ni ki mu dëgëralee bii ci qaadi ji hmm. almutaqaadi aji attelu yàlla mi la teg xel bi ba nga nekk ndëgër laayal ñiñ tooñ yàlla na la dëgëral ci nga nekk ba léegi sa liggéey ak bu ne nga di jëriñu di ci am tiyaabo day jëriñ nit ñi li moom tegg yin la bu xam ne maxkama bi moo ko laaj rek ndax xadi kuñ war a xormaal ku ko xàkkee ñàkk tegg yin donte yow lañ tooñ moom sañ na laa duma dëgg la nag fàttale ko yàlla nag fiya doon dëgg la boo xam ne waru ci wax nit kenn waru ci wax nit dara dara ayata yàlla na dëgëral qadi ji kama ayata ni ki mu dëgëralee bi ci waa di xadi ji almutaqadi aji xattelu inna a naka luy mbir kaanat nekkoon na lii ñi xal ma mooy dama amoon mamlukatun ku ñu moom dafay niru ab jàm bu jigéen rasiqatul qaddi ku daa jag ji taxawaay ku amee bu rafet rafet asilatul xaddi ku daa ji ci lex koo xam ne lex bu rattax la kon xëy na jebeer la boo xam ne taamu nañu ko pour bànneexu sa góor kay muñaakoon xalal mm-hmm. kër di ci coono mm-hmm. nekk koo ñemee coono mm-hmm. fekk arab ñoom lim liñ tàmmu ci jigéen mooy tayal waaw loolu mu xam naa jomb dana jaaxal xaadi ji mën na koy tax a gën daal ndax lim déparé ak lim ci teg neexu la xam daal waaw ndax arab liñ tàmmu ci jigéen mooy tayal yakkaadu yasrawaha lawla tasadduduha ida aqaama ila ila jaratiha alkasalu xam nu mu ko waxee di mu ne buy dox day tayal ba mel ni kuy bëgg a daal ba mel ni kuy bëgg a daal waaw saboorun kay mu ñàkkoon alal kët bi ci coono taxu bu dana mu ñàkk ahyaanan ay jamono kan naar di demel ni fasu naaru góor ci mën a liggéeyee sawar watar ku dana mu yàndoon adwaaran ci jamono fil mahdi ci lal mel ni jeebe wata jur dana mu fekk fii tëmmuus ci weeru tëmmuus mooy weeru yooli yu weer biñ génnee mhm. suyee dana ci yëg masal barde laal mhm. mhm. e e ak sedd te jamonoy sayfu la day faral de tàng e waaye da ci yëg sedd saatu àqalin borom gëx la mooy dañ koy xeew waxe naa nen ak gog dañ koy xeew waxatin ak ñaw ka wase naa nen ak ñaw ka wakkëfin ak ténk bi banaanin ànd ak i baaraam wakomin ak gémmiñ bila asnaanin ci lu dul ay bëñ mu ne moom loo kaa mbiri nii la man kenn mën nga xam lu lu puusal taltaxu dana mu màttee bi lisaanin ci làmmiñ ndax naa leen bu daaji melenteku ndax day jame xam nga ci kanam watar bulu dana mu daagu haale dana solu fii day leen ci lafit fattadin bu daa ji jot mooy wëñ nga xam nga day gudd gerte ko gaaw watuñ laa des na ko feeñal <coughs> fii sawaadin ci ñuul wa bayaadin ak weex léeg-léeg ngi seen yére weex wala yu ñuul wañ beeg dugg muy dugg ci li muy ñëw watu saa na walakin waaye nag min xayri yadin ci lu ay mbalka du li nga nàndalee ci mbalka de mel ni ak jur déedéet de du jël du ci du ci mbalka lañ koy nàndale nasihatun aji lahi biir la xudaatun aji wuruj la <coughs> léeg-léeg mu lahi la biir waaye léeg mu yàqal la ndax mën na laa ñëwal sama laat ba mu la waaye léeg mu jam la yéen gaañ la ku ba atul aji nëbbu la léeg-léeg ne yarañ bu newee ci biir di rax noonu tula atul aji génn la mat bu atul lu ñu móol la xalal man faati di jëriñ te kuy jëriñe la wa mit wa mit waatul toppal la te day xëy ci xat wa saati ak yàlla te ku mën a soxla ida qataata boo daggee wasalat mu jokk wala ida qataat bu daggee it wasalat mu jokk wa mata fasalta waxtu woo ko faccalee xam nga wëlis la in fasalat mu ko ba bëggul mu jege la dina jege mm. wa taalama xadama yàgg na buum la liggéeyalee fa jëmmalat mu rafetal liggéeyal waaye nag warub maajana tooñat na hin nag xalayka ci yow fa alamat mu métital ca tooñ ya ba mu hen la ci bàttal yow ma jàllal mu métti la liggéeyalee nga kontaan waaye bu la defee lu métti dama xamoon moom loo ko boo xam ne lii ma la wax daal moo ci ne wa inna hada alfata gune gii nag istaxdamaniha àbboon na moom gune gii nag dafa waxoon ne dafa soxla si liggéey moom loo ko bi moo man na ko mu ne naa ko xabal li xara dem ji rek jum fa axdamtuhu ma xabal ko iyaa moom loo ko bi mm-hmm. bilaa yawa dem ma ne naa la ko nangam ci temps nga la defal li nga soxla diit bi muy am ci sa la lii laaj ma la ci dara wallaahi xalaa yey tan yee ci bu mu kotteat nafaa yu kallifaa te du ko togg illa wusaa nga rek kattanam waaye nag xam ne dafa am fu man manam xem man ngi cee jëriñu ko soxlaa waaye nag bu ko teg lu mënu mm-hmm. loolu laa ko fa aw la mu tàbbal mm-hmm. fii haa ci mamlooka bi mm-hmm. mataahoo bagasam waataala mu yàggal istimtaahoo bànneexum bi haa ci mamlooka bi mu jëfandikoo topp sagoom sànni xelam fële sànni diinaam fële xamul ko mu war a xam fa ataala faaw la jëm mu tàbbal fiiha ci mamlooka bi mataamu bagaasam wa ataala mu yàggal istimtaamu bànneexum biha ci mamlooka bi suma aada topp mu delloo ci mamlooka bi ilaye jëm ci man waqat abdaha te birom xëtt na ko te nag delloo si na ma ko xëtt na ko wa badala mu joxe xan haa ci mamlooka bi qiimatan qiima joo xam ne laa daa du ma ko gërëm lim ma jox na di ko tuddee ndàmpaay bëgguma ko tey bëgguma ko ëllëg wa badala mu joxe xanaa ci moom loo kabi qiimatan qiima joo xam ne laa daa du ma ko gërëm lim ma jox daal di ko tuddee ndàmpaay bëgguma ci dara du tey du ëllëg xam nga kalaame moom ki kalaame bu waxee xañ kalaame mooy wax ne dëgg la mu ne du dëgg léegi góor wax na fa wax alxadasu gune gi gune gi wax ne ama seyxu daal góor gi fa asdaqu moo gën a dëggal min alxataa ci ci ci prime ñu ne am picc la moo xam ne buy naaw dara alxataa xataa turam bi ñu ne ko madrabul masale ci sit ko mu ne góor gi li mu wax dëgg la de weddi bu ma ci dara dara dara dara dara dëgg la de xamoon na mam looka bi de te xabaloon na ma ko de waxoon na ma lii de xëtt naa ko waaw mat yow daaw daal fële léegi xëtt gi nag fa faratara ween a am xëtt yin ci njuum wante nag tey te man dama ko joxoon garante mu ne waqarrarantuwoo te tayle naa ko artima ci te iyi bi li nga xam ne awhantuwoo naa ko te li ma yàq ci mam loo jox naa ko lu mën doon ndàmpaayam tayle naa ko mam loo ku ñu moom xam nga ni mbiroo jàmm bu góor jox naa ko mam loo lii ñaal ma mutanaasiba tarafayni bu dee ci askanantoo ci ñaari pet jox naa ko mamluk bu xam ne lépp askanantoo muntasiban ku daa ji askanu ilal xayri jëm ci tëgg muy mamluk boo xam ne tëgg la ko mën a lëggéey naqiyan daa ji set min a darani ci tilim wa soy ni ak mamluk bu xam ne bu set la yuqaarinu dana lënkoot mahalluhoo barabam sawaadal ay ni ñuul ak bët soo ko gisee rek bëgg ko xool ko rek nga def ci bët nga sa bët nga koy yu sii dana mu siiwal alexsaana rafetal soo ko defalee lu rafet soo koy siiwal xam nga tusngel day wane taar bu baax wayu siiw te dana mu sox alistisaana rafetlu lu mu xam ne rafet na seen diggante ah boo ko santaane wut itam ca loolu lay niru waaye xam nga tungeel dañ koy noose wa yux di dana mu dundal al insaana insaanu naa ni lañ jublu nagu bët baax na ci bët way saxaamaa dana xaaru al lisaana làmmeñ du lalanteeg làmmeñ da koy terew in subida bu ñuulaleetee ko jaada mu tabe bu ñuulalee daal ñuulal bañ ca def dana ko joxe daan in suubi da sangale bee ko day niru aw wasama walla mu mandargaal ajaada mu rafetal way daal suubi da bu joxee see ko yóbbal waxaa bu mayee asaada yóbbal wa mata su siida waxtu wu dollal ne koo see ko buy saal ko ci moom dollal saada mu dolli mamluk mu mel nii laa ko jox la yastaqiru du mu sax bi maanaam wala yéen kii wute du mu denc illa mat nan dara xar ñaar moo su ngeen ñaari bët bay tëq moo su ngeen bii lay su ngeen bëre yéen xoo dana mu tabee bi ma joodi yi ci lu ñu amam wayef moo te dana yëkkateku inde joodi yi fa mayee ba tabee wayen xaatu na mu xomatu maa xarinati yi ànd ak ànd ndooram way lam takun donte nekkul min tiinatihi da bokk ci xeetam hmm. commande rek hmm. de ko yow wayut mayut tam taxaw def na bànneexoo hmm. bi siinatihi ci taaram way lam yut ma donte xememeesul fi liinatihi ci nooyam mu ne ko man maa ko yàqal moom loo bii la ko jox pour muy gaar jàmm man daam waaye wax dëgg yàlla kilifa nag gannaaw dëgg rek moo ko taxa a jóg dafa war a xam la muy dugg te lii ay jax la xaadi da fa qaala wax lahu ma alxaadi xaadi ji leen imma benn antu biina ba ngeen biral da ngeen may wax lu leer ma xam ne nangam moo leen xatte bi nangam la ma doxal loola wa illa bu ngeen man de biral fo biinaa fa ci man leen ko ay wax abal leen moom leen ñu fomp na leer da ngeen wax leer wala ngeen génn abal ma fi affaire yi joxe affaire yu cap indiwu fi kenn da di wax dëgg yu leer xam mag mi amee tappale yi góor amee tappale yi bañoo tappale moo jëkkoon a wax man daa am bu xaali yi jàngale mooy gën a dëgër fit bu ko defee nag gune gi nag mooy mooy jàkkalante wax nag ba xaali yi waxee wax xam te wax daal di jàkkalante wax xaal mu ne aara nii daf ma xabaloon ibratan ab puusa góor gi daf ma xabaloon ak puusa li at wa ngir naa daax atamaaram ay sagar xam faa haa yooyu rappal na leen al bila ràpp wa sawadaha te mu ñuulal leen damaa xamee rafle goo tatatatat xàgg ci mënatumay ñàkk daax samay sagar ak luñ ràpp ràpp ràpp léegi nag puso ma daaxee moom la ma xabaloo fan xaramat fi yadi ala xata in min ni yàlla maa jasabtu miqwadaha falam yara seyxu an yusaamixani bi arshiha id raa taawudaha bal qaalaha tibratan tumaasiluha aw qiimatan bada an tujawidaha وانطق ميلي رهنا لديه ونا فيك بها سبة تزودا فالعين مرها لرهنه ويدي تقصر عن أن تفك مرودها فاقوي بأثار غور مسكنتي واسد من لم يكن تعودا دم حولون بوسا فانقرمت مقتم بوسا في يدي جسمان على خطئين تنجوم تمن يجي من سنتيمو لما جدرت بما نودي مقودها وجم bama ñoo dee wëñ gi pour wëñ gi génn falam yara gisut asayxu góor gi ayu sax mi xat yi ba mu jéggalan ma bi asihaa ci tey ayibam israa ba mu gisee taawudahaa dëngam xam naa ne nit boo ko xabalee sa alal dal ko ca waroo koo fayeeku lenn waaye xam gu ma xam góor gi ci jëfeem tax na ma am lu ma yëkkati tuddee ko ndàmpaay dal de ko ko jox na ko ndég pusa bi ma yàq kon nga jàpp ci waaye nanguwul maa baal ban li fi nekk wax na ma ne daf ma ne haati andil ibratan pusa tumaasiluha boobu dana xema moom pusa bu ni ba ma la joxoon moom nga maa delloo si waaye ay tusingal kii defe ma ko daaw pusa bu ni ba ma la joxoon laaw parce que lu nit mën a jëriñoo laa la joxoon aw qiimatan wala qiima ba nga daan bi daa ci gannaaw boo ko rafetalee wala loo tolloog njëg pusa booba de ci xaalis nga may fay ma dem jëndee ak waaye tungal yi man defee mu tungal la du tungal moom wantaaxa mu gàllankoor miil yi suma tungal raanaan muy tere da day fa moom bi mu waxee li au mu delloo ma tungal bi da wax ne bi li tax nga jotati ci mooy puuda bi ñëw téyew moom maabal na ma puuda tafaar dal na ma ci doon naa jéem a lay doon ko jéem a dëfal jox ko sama pusandéegi sama tungal nekk neexal ko aw ma jàmm mu ne moom il faut pusa laa koo jox wala xaymay pusa ba ma ko yàqaloon bëggul tungal bi te taxul mu delloo ma tungal wantaaka mu gàllankoor mii lii sama tungal bi raanaan muy tayre la day ba moom wanaa yi ka nga la doy bi ci lii subatan ci gàcce te sax wadaha boo gi yóbbu loolu ko xam nga ni ñaaw na loolu mag di ko def de nga ni jëmut ci loolu mag di ko def de fanaay nu suma bët bi marha aji booy la li ran ni ngir tay def tusnget bi man dama ko doon fajoo bët bi da koy soxla tixee bi mu ko tixee tusnget wuuma tax na suma bët bi mu ngi métti léegi def na booy booy wéyal nii te sama loxo taquru dana mu gàtt anante bu ko walit muy xob bi mbir ma daa tul ngëlam te li ma laaj mënu ma ko xaw ma ko moo ko def te xaw ma lu ma jotee fasbur na nga nattoo bila sar ci leeral gi xawra maskanati xóot ak sama ñàkk léegi ku la leeralal nga bëggoon leeralal naa la xam nga li ma wax xam nga li suma lor tom àgg naa ci garaatu mënuma am pusa njaabal mu pusa tafaar fekk ma ca léegi yëre ya doon gaar gaar wut su ko defee tusngel ba ma daan fajoo jël nañu ko inéeti nañ ba warte te na nga yërëm li man ñaal koo xam ne lam yëkkul nekku moon temps wadaade ko baaxoo te nag bul foog ne ndax damaa jaarut ci xam-xam tera ngay xam-xam bu ne am na waaye addina moo am nu mu demee mm. mu neex ëllëg mu naqari ku ni yow nag ah yërëme mooy sa wàll ku ni yow man la bañ ñi tawat ko soxla hmm. man rufiat lahu darajaatu hmm. rufiat ilayhi hajaatu hmm. mu ngi maqaama dégg nga <laughs> fa aqbala dal de jublu alqaadi qaadi ña ala seyxi ci góor gi boo ko dee qaadi ji janoo góor gi wa qaala mu ne ko ii dollin wóora la bi xëy tam bii ci lu dul naxaat gannaaw seen diggante yéen ñaar moom wax na looleya yow it waxal looleya sëñ bu baax aw góor gi mu amee tappale yi aw jiw la gi fa qaala góor gi ne aqtamtu bil maharil harami wa man damma min annaasikiina xayfu minaa law taafadni l ayaamu lam yarani murtahinan milahu alladi rahana wala tasaddaytu abtaxi badalan min ibratin xaalaha wala samana lakin qawsa alxutuubi tarsuquni bi musmiyatin min ha huna wa huna وقبر حالي كقبر حالتي لغت وبوسا وغربة وطنا قد عدل الدهر بيننا فأنا نظيره في الشقاء وهو أنا له يستطيع فك مروده لما غدا في يدي مرتهنا ولا مجالي لضيق ذات يدي فيه اتساع للعقل حين جنى فهذه قصتي وقصته فانظر إلينا وبيننا ولنا su ko defee ñu jàng mën nañu jàng loolu mu ne aqsamtu maa ngi giñ bil maxaril xaraam ci borom maxarul xaraam maa ngi giñ ci yàlla mi moom maxarul xaraam wa man tey borom ñi nga xam ne damma boole na leen dammahum xayfu minan xayfu minan mooy masjidul xayfi ca minan minan laa fi gën a ci way jaamu yàlla mi nga xam ne moom moom ajkati màkk yëpp minan daje dammahum dañoo asamaayee di man nga xëy fu mooy faayil damma wa mm-hmm. man ak ñi nga xam ne damma boole na leen mm-hmm. lu leen boole xëy fu minan xëy fu minan mm-hmm. mooy masjidul xëy fu ci minan minan naa si kii ci way jaaw maa ngi gis ci yàlla ne law saaxa fan nii bu ma dimbali woon al ayaamu fan yi lam yara nii du ma jit moom gune gi mustahinaan ma daa ji jàpp tayele mii la woo allah di tur ngeen bi nga xam ne raxaana na moom léegi man su ma jagoon jagat mën a el yenn kon daa rombale sama bopp ne téye tur ngeen bi waaye dama tanul el dara moo ci nekk wala tasa day te ni ko noonu du ma gaaru ab badalan watt min ibratin ci puusa xaalaha boobu yongaan na ko mooy yàq na wala te mënoon du càggin njëg ni ko lan puusa bu ma kii yàqal waaye damaa tollut bare lakin na xawsal xutuubi li fi nekk yi mooy fekk mbir yu diidi tasu ko nii ñoo bi mut mi yaatin ci bal yu de wéy boom fekk yu de wéy boom mooy yu de rey min ahuna ci fii wa ahuna ak ci fii waaye tolof tolof yi ñoo toppante te biir tolof tolof yi ñoo toppante te biir wa xubru xaal yi dëgg-dëgg sama mbir daal ka xubri xaalat yi ni ki dëgg-dëgg dañ di ñaar ñoo xam ne kenn mënalul morom ma dara hmm. te mel ni mënuñoo baante hmm. su waaye jagadi moo hmm. waral li ma tawatee rek ak jagadi moom waaye muy sama jagadi ah <laughs> moo waral li ma tawatee rek ah <laughs> bu jagoon su nekk bi di garas ay malaat di jël posal jàmbat bu muy damm ñii téye tur gëlëm ay bëtam di booy buy bu yóoxu mm-hmm. waaw muy loolu su ma jaboon ba jagal mën a baal di dara mm-hmm. ah kon kon kon mën ko baal du mm-hmm. waaw moo tax ma tawatee man waaw sama jagal yi moo tax waaw bu baax a baax la ko dal moom jagal yi moo tax li ma dal man jagal sama jagal li ma ko def sama jagal yi moo tax wa xubru haal yi dëgg-dëgg sama mbir daal ka xubru haalat yi ni ngi dëgg-dëgg mbiram la du ci lor ko buusan ak ci weñsu ko xurbatan ak ci tumaranki watanan ak soomo ñoo bokk lor gi ñoo bokk ñàkk gi ñoo bokk tumaranki gi ñoo bokk wéradi gi daal ñoo ko bokk xanaa dalay xemale hmm. mooy mandu na hmm. addëru jamono hmm. bay na naa ci suñ diggante jamono mën a gën a léem wane wu ko sama diggante moom ba ñu xemale rek kenn ko ne mu tëg ko lu diis rek <laughs> a ñu daje fa anaman nadir woo may fi soqaay ci texe hat yi woomu ana comme seetlu bu baax a baax mm. bi ma ko gisee laa xam ne ku ñàkkee saas ni ku ñàkkee saas ni man mm. xam na mooy bi ma gisee laa xam ne ku ñàkkee saas mm. na <laughs> di nekk rek xanaa na bay na laa suñ diggante jamono mën a gën a léem bi jox ji jox kii njër jox kële gannaaw loolu dafa ko suma diggante moom ñun ñaar wala ñu jox gannaaw faana man nadiruhu may ndendeem ci saqaayi ci texe aji mu laa su fekkee nattale woon ne ku ñàkk chance ni moom xamul ci àddina bi ma gisee xam ne ku ñàkk chance ni moom xam na woobu ana mooy mooy kem man may doon su ma nattale woon ne koo ñàkk chance ni man xamul bi ma ko gisee xam den moom yesi moom buy man kammil wadi yow xob bi tusnelu kaayam mm. lama xata ba mujje mm. murtaanan te lu ñu jàpp tayee fiye tayee ci sama loxo mm. tusngelam bi téye naa ko xamul lu ko jotee ba man cee jot loral ñàkk tusngelu mu ko toog wala majaali del suma wëndeelu waay fii daja nekk ittisaawoon yaatu li la xam ci jéggale kii na jana waxtu ba mu tooyee di xibaat yi di ngir xatal sama loxo ma itam nag xamalu ma defal nit xamalu ma maye pour mu ko baax waaw da yoru ma daara daal may may kenn da sere wa ma yoru xamalu lu mel na bu joxee ko toog du ma ko def ma daaw du lu mel na <laughs> li mu mënta ñàkk waru ko joxee te doo te ko bu baax ak nit la ko waxoon boo xam ne foo ko defoon te yàggoon ci rafle joxe ko taw du ko def ak nit la ko waxoon waaw di ko xam ne bu jox foo ko defoon te gannaaw mu yàgg ci rafle lool waaw muy fi ni nu maa joxe te toog li ma nag mun ko fa haadihi lii daal xisati mooy sama njàngal wa xisatoo moom it la leen mooy njàngal waaw fa haadihi xisati wa tilka xisatoo moom lam la wax mooy mbiram man li ma la wax mooy waaw fa haadihi xisati wa tilka xisatoo waaw li ma la wax moo ne ci man moom lam la wax moo ne ci moom waaw fa hadihi li qissati mooy sama njàngat wa qissatuhu moom it lam la wax mooy njàngat moom it la leen di njàngatam rek waaw fa hadihi qissati wa tilka qissatuhu waaw dañu asu mubtada bi rek wa qissatuhu selman bu baax a fa hadihi qissati wa tilka qissatuhu waaw loolu mooy maanaam ñu dégg nga gaa ñi dégguñ ko waaye loolu <laughs> loolu dégg nga li ma la wax moo ne ci man waaye moom it li mu la wax moo ne ci moom eh fan nga xoolal day naa dem ci ne ñu jàkk rek hmm. boo ñu xoolee ñu loolu rek ngay gis hmm. xam nga gi ne ci ñun doo ci kuréel hmm. ah boo bay na naa nga seet itam suñ diggante gannaaw masaaka ijtimaa yi yaay ki koy rek ñun ci mujtama mi lañ bokk muskila am na suñ diggante ay wa lijjanti ko waaw gannaaw société bi bu lañ lañ amee yow yaa koy lijjanti ñun ci société bi lañ bokk lañ lay am na suñu diggante aywa li jënd ko bay na waaw te <laughs> lu ko wax wala naa ak ñaan ñu ak itam ab nga bu sama morom xen dara ci jaamam bi ñu loolu dikkal nañ la am na lu la war ci ñoom aywa te tan loolu ñu jox unzur ilayna <laughs> mooy xool ñu sa bët da nga xam ne li ma la wax dëgg la wa bay na naa mooy nga lijjanti suñ diggante ndax am lañ lañ la wala naa mooy nga seet loo def ci lor gi waaw <laughs> nañ dem tuuti rek ñu dem tuuti rek su ko defee nag lu ñoo duggee doole ak lu ñoo duggee yërmande bokkuñ te lu ci nekk dafay gaal kilim waaw lu ñoo duggee doole ak sañ ak lu ñoo duggee ndànk yërmande hmm. bokkuñu lu ci nekk nag hmm. dana dëgg ak su jaawalee rek nag hmm. def musiba xaadi ji nag settantal leen bi sett mu ne falam ma waxaa ba mokkalee alqaadi qaadi ji xasasahuma seen jàngat ba mu settantalee seen wax bu baax a wa tabayyana te mu birlu xasaasatahuma seen ak ñàkk wa taxasusahuma ak waxtaan ak ak maanaam mooy seen ak jàpp wëlis ñi wa taxasusahuma ak seen mooy niñ doonee nit ak taxasus mooy nga bañ nekk di mel ñi amul benn mooy nga nekk nitu Xadija nag bi mu leen seetloo gis liñ ñàkkee ak niñ demee abrasa génne na lahuma ñaal leen dinaaran ak ab dinaar dafa génne ab dinaar min taxti musallaaw ci doon julleekaay dafa yëkkati julleekaay bi génne topp da ko topp da tàlli dëgg dëgg mu génne diina wa qaala mu wax lahumaa ñaar leen ñoom ñaar mu ne leen iqtaa na ngeen dagg daggee bi ci diinaar alxitaama xuloo bi wax si laaw te ngeen dagg mooy leen yóbbu leen diinaar te jeexal am leen ngeen bokk hmm. te jeexal ko hmm. fa talaqaboo dalte ko xaw hmm. afeexu góor gi doonal xaata di woo leen gune gi ba dinaar bay génn rek góor gi daal di ko këf bàyyi xale bi wattax la sa wow mu sàmm koo mu ne dinaaram la moom góor gi xalaa wajil jidd ci anam ak dëgg danaa bëgg waaye du ko ñu ne wax day kam mu dëggal waxaala mu wax lil adasi ñaal gune gi moo xale bi ne ko nit ku woo genn wàlli dinaar bi lii ñaan na ma bisami ma barnati ci cëram sama njëkk wasaamu ka sa cët bi lii ñaan na ma an arsi ibrati ci tey ay yimi sama puddal mu ne ko dinaar bi maa ko parce que buñ ko séddoo maa moom benn wàll hmm. loolu mooy sama wàll bi sa wàll bi fayee nga ma ko sama puudar hmm. léegi wala su deen man amin may jeng xane làq walis dëgg man dama la mën ta baal waaye du ma la tooñ hmm. aywa fokkum jogal ma te nga jàpp al mii la sa tusngel sa tusngel loolu la góor gi wax de fanxaraa dal de gaar alxada sa gune ikti abul njàqare mm-hmm. li maa ngir li nga xam ne xaddasa soosu na xam naa ne mbir mi demee nag tax daal gune gi am lu ko métti lool wappaxaar na lënkoo ala sama yi ci xasamaana saa bu niir mu ne nga ji xasamaana si xiin mooy bëri xooñ muy bugg a jooy xale waaye nga gis nga bëri xale bëgg a jooy la lan la jur jaaruwaa la sa xëy nga bëri xoj na muy bëgg a jooy rek wajama wedem na la woo ngir gune gi alqaadi qaadi ji waxayeja te mu jéqi asabahoo njàqareem xala dinaar yi ci dinaar almaadi bu daa ji wéy bi góor gi defee nii nag xale bi taxaw nag loolu nekk gag-gag ci xaabi bi mu am lu ko métti ci ni leen joxee kii naa danga mu ne danga mu ne kenn mën dimbalante ñoom su ma xamoon ne ñu duñ dara jaaral damay xaajale dinaar bi ñaari xaaj kii ma ne ko am di kële ma ne ko am waaw su ma xamoon ne ñu duñ dara loolu lay def <laughs> loolu la xaajale noonu la gisee illaa annahu ndare moom jabara jàng na baalal fata kalam waaji wa ba mooy gune gi wa bal baalewo ak jaax jaaxleem bi duray himaatin ci ay dërëm yu tuuti rek yoo xam ne radaxa xonte na bi haa ñoom lawa ñaal gune gi waaye na yëkkati na tuuti nag ay dërëm doo gune gi ne ko xanaa man nga jàpp ci nii wa qaala mu wax lahuma hmm. mu ne leen ijtaniba na ngeen teet hmm. al muamalat yi jëflante yi hmm. yéen ñaar bu leen leen seqati jëflante jëflante la jay gën boo koy seqal nit da nga koy mënal dara mu mënal la dara su ko defee nga jëriñu ci moom mu jëriñu ci yow ndax boo gisee ñii ko def hmm. xam soxla atte gi nekk ci diggante nit ñi la hmm. ñaar ñoo xam ne kenn mënalu dara morom mënal hmm. kon jël ñuy fekk bu leen jëlante wasa a te ni ngeen deñ al muxaasamaate xuloo yi ngeen wattale ko jotee su ngeen fekkul dara kenn ku nekk xam jàmm ca morom ma kon it mu tane boo xamee ne xamu leen dara te dëkk di waxante lu wala tahdurani bu leen ma teewalat fil muhakamaati ci àtte lu gannaaw tey na yow góor gi boo fi indi ci gune gi gune gi boo fi indi ci góor gi kalaami ante fii moom bul delloo ko fa maa ngeen di nekkul fi man kiisul xaraamaat yi porte mu ne fayu kay bari keesu fayu kay dun man dama amee ak kees koo leen du man dafay ma fay lii sama liggéey mooy koo amee àq jàmbur ma ne la delloo ku te mënu koo delloo ma ne kon ñu jàng loolu bu beneen incha allah ñu mottali mu xaamal ma jël lekk ci sa jekkale ko ci sa loxo loolu moo tax naa mu jëfandikoo yërmande ba mu jëfandikoo yërmande génne lam génne góor ga def ci yëfi gore hat yi hmm. ba dafa mujj rek seet nu leen xewen looyee hmm. ne leen bu leen jëflanteeti hmm. ba leen jotee hat yi gannaaw tey bu leen ma fi indil kalaame hante fa naxada ñu dal di buur ñoom ñaar muy góor gi gune gi meneen di tukkee fa moom ñu jógee fari xay ne da way bég di ci kontam xam naa kontaan nañ ci lim leen may nag ndax mbir mi xuti la woon rek waaye du doon jotee mu si xëy ne da wó da way wóoral bi xam di ci cantam ñi nga wax gërëm na ko wax dëgg yàlla bu la neexoon sonal ñu bu la neexoon ñu def loxoy neen waaye jëflante nga ñun ci yërmande wal qaadi qaadi ji maa yax boo du fay mm-hmm. mooy fayu mm-hmm. dajaru hoo yokkatam te mooy xat ak bakkanam mus mm-hmm. badda waxtu wa seebee xajaru hoo dojam wala yansuru dañu mooy wàññeekuwut kama du hoo njàqareem mudrasaha waxtu wa seebee jël ma du hoo dojam xaadi ji nag xam naa nekk gi nekk nit ku dëgër te tey ñu jëlee ci moom dara ci xanam gi hmm. loolu jàpp na ko nag hmm. tax daal xol bi neexul dara dara dara dara hmm. ñu ngi sant ak a wax waaye li ñuy wax yoonam ne mu ci daal wal xaade xaade ji mayax boo fayut dajaruhoo yoo xatam mooy xatab xolam mos badda waxtu wa seebee xajaruhoo doyam wala yan sulu dañut kama duhoo njàqarem mudrasa wax ko wa seebee jël madhoo dajam mooy loxoom mel ni doj xam naa nit ku dëgër la waaye kem niñ jëlee ci moom te muy ci xaram gii nag loolu moom métti na ko lool xata ida afaaqa ba mu xiqee nag min xasiyati yi ci muuru xelam naqat woowu nag ba mu demee ba dal leen ni dal mu mën a jàllal ba ko wax ak nit ñi aqbala jublu na ala xasiyatihi ci mbooloo ña fa nekkoon de ko seetaan ñoom la jàkkaarloo commencé wax ak ñoom mu ala xasiyatihi ci mbooloo mooy ñu ñëwoon wa qaala mu ne leen qad usriba nandaleer na xis fii sama yëg wana ba ni xamal na ma xat fii sama njort xat waaye njortu njortu luñ teg ci mandarga hmm. ah adannun mustanidun ila alamatin hmm. mooy xatsu ah hmm. njortu loo xam ne dañ ko teg ci mandarga wa nabaani xamal na ma xatsi sama njortu ne annahuma naka ñoom ñaar saaxiba daha in ñaari boromi jommale lañ laa xasuma dia in waaye duñ ñaari wéy xuloo ci mu ne man daal ñii ni ma leen dañoo nekk ay yu lool seeni plan ak kësima pour ku leen jox dara waaye mën naa am wax ma leen gisee daal loolu la ma gis daal xat na xis si sama yëg wana ba ani na ma xat si sama njortu mooy njortu loo xam ne fa fa tegee ci màndarga ne annahuma naka ñaar saahiba daha in ñaari boromi jox laa xas maddi ayin waaye duñ ñaari wéy xoloo ci xoole hmm. fa kayfa sabil naka yoon ila sabri ma jëm ci seen nattu hmm. ku leen bëgg a xam ne ana foo ko jaaree hmm. wattin baaxi sirri yi ma ak ballulu seen mbóot ku bëgg a génne seen mbir ma toj seen tax bi noo ko defee fa qaala dal de wax la woo ñu alqaadi ji nexriiru zumratihi aji ñawi mbooloom mooy ki nga xam ne ñaar koy xelal ci yu bari wa sararatu jamratihi tey njarmeentu xelam ku xam ne ñaar dinay doyloo xelaatam ci yu bari moo ko ne innahu naka luy mbir la yetimma du matee istixraaju xabihima génne seen taxañteef mooy lim denc illa bihima na rek mu ne ko ñi ne seen mbir kenn ni mu ci toll. Hmm. ñi fi nekk ñëpp noonu lañ ci toll. Hmm. wax nañ dikk bi rek xamuñ fu mu boo buñ boo xamuñ ci seen démb dara. Hmm. mandarga yi nga gis. ba foog li nga foog. fi mu ko gisee su doog a nit ñi gisee. loolu mooy tax daal pour mu leer. suñu ko moom rek la mën a leer. waaw fa qaala dal de wax la woo ñaal ko nexriiru sumrati aji ñëwi mbooloo. wa sararatu jamratihi tey njarmeentu xalam hmm. ki nga xam ne ñaari daal yu bëree bëri daal hmm. moo ko dee xalaatal hmm. moo ko ne inna loo naka luy mbir la yetimma du matee istixraaju xabihima génne seen ndaxante illa bihima seen mbir daal ñoom la ñu nag mu baax la war nga rek kilifa mbir mu ne di sàmmante kam ci war a déglu ak kam ci war a déglu waaw mbir mu ne waaw kilifa dafa war di sàmmante kam ci war a déglu war a déglu kam ci war a dugal ak kam ci war a dugal lii na xaari ñi ne na ko daal pexe mi pexe mi mooy jot ci ñoom waaye boo ci dégloo waxi keneen yi du la wax dëgg waaw pexe mi mooy jot ci ñoom boo ci dégloo waxi keneen la wax dëgg ndax kenn xamuñu dara loolu la am solo la pexe mi pexe mi mooy jot ci ñoom rek boo ci dégloo waxi keneen nit du la wax dëgg ndax kenn xamu ci dara waaw fa xafaahuma mu topp looleen moom xaadi ji xaw nan jaraar joo xam ne yur jimahuma dana mu leen delloo si ilayi jëm ci moom mu seet kenn ci ñi muy liggéeyloo na ko dawal nga dawal ma boo leen dawee nga xooxal ma leen kooka daw dab leen ne leen ñu wéy falamma masala ba ñu taxawee benn yi ca kanamam biñ taxawee ci kanam kilifa gi xaala wax xaadi ji lahumaa ñi ñaar xaadi ji ne leen usduqaani dëggal leen ñaar hmm. sinna bakrikuma xatam seen gëlëm hmm. mooy wax leen lii seen dëgg rek te bu leen di làq dara sadaqani sinna bakri mooy wax na ma lay dëgg ci moom léebu la bakru mooy gëlëm dafa am ku doon jënd ak ci guddi jaaykat bi am fu ko wax ne ko fa la gëlëm yu tolloog ay xat tudd ko ay mandarga ci foq bi mu gëm la ko jaaykat bi wax dal di ko jënd ci guddi ga ba ba setee ba mu setee gërëm gi hmm. mu dëppoog la jaaykat bi waxoon hmm. mu ne sadaka ni sinna bakri yi hmm. mu muñ di nekk masal ci saa sooy wax ak nit mu wax li nga xam ne moo nekk rek mu ne dama bëgg ngeen wax li nekk rek usduqaan yi dëggal leen ma yéen a sinna bakri kuma xatam seen gëlëm wala kuma te ñaal na leen alamaan hóoluloo min tabinati magrikum ay ci xàq seen tappale su fekkee dem ngeen tooñ itam man garant naa du ma leen wax la waaye dama leen wax lii dëgg rek fa ajama dal di dattu mooy gannaaw alxadasu gune gi wastaqaala te mu xàccalu gune gi dal dellu gannaaw man daal dootu nga jégal ma rek bi ñu bàyyi ko man bu mu man bu mu wax dootu nga jégal man bu mu waa xadama daal de jiitu mooy engagé hmm. asee ba góor gi hmm. góor gi moo engagé yëfi xam nga mooy lal plan moo tax hmm. waqaal mu wax a xaadi ji ne ko ana saro jiyu wa hada waladi wa shibu fi lmaxbari mislul asadi wa ma taaddat yaduhu wala yadi fi ibratin yowman wala fi mirwadi wa innama dahrul musiu lmuctadi maala bina xata xadawna najtadi kulla nadi raxati abdil mawridi wa kulla jaadil kaffi maxlulil yadi bi kulli fannin wa bi kulli maqsidi bil jiddi in ajda wa illa biddadi dinañ li ba rasa ila alxadisadi wa nunfida al umra bi aysin ankadi wal mawtu min baadu lana bil marsadi innal yufajjil yawma fajjati mu ne ana man asarooji yu may ko jug sarooj hmm. man de may góoral sarooj gi ngay dig hmm. waxaasa kii na wala di sama doom la hmm. xale bi nag sama doom la wasib lu xalab te mooy doomu gaynde bu fekkoon doomu dawkat la wala xalaw la koy wax aywa rab jiru la rab jiru jiru waaw bu gaynde bi mooy siblu wa siblu xalaw fil maxbari ci baatin mislul asadi kem gaynde goo mag la gaynde goo ndaw ak goo mag xanaa doole ak xëppante kattan moom lay nekk waaye fit waa xam faddu ga ñu jegante waaw déggoo moom jëfewu kii boobu mag rek. gañee ko ndég mag rek. Mm-hmm. waaye rek moom benn lañ. Mm-hmm. wa maa taxaddat jàggatiwut yedduwoo loxoom fii ibratin ci benn puusa yow man. Mm-hmm. mosu mu ko xawal puusa. wala yeddi mos da jàggati sama loxo yow man benn bis fii mbir wadin ci benn tus mbir. mosuma téye tunkale mit nag. dara jotale woon. wa maa taxaddat wala yedi du caageen sama loxo fii ibratin ci pusa mhm. mu ci yeduhoo mhm. yow man bi mhm. wala fii mir wët du caageen turgelukaay mu dellu ci yed yi waaye wa innama dëru jamono nag almusiu ma da aji ñaawal almuxtadi ma da aji jàggati waaye jamono mii soxat mu soxat te léeg-léeg du kam war a soxatee moom jamono moomu hmm. maala moo jeng binaa ak hmm. moo dal suñ kaw dal ba xiir lool hmm. ñu àgg ci mën a bu ñoo bañ daal moo tax ma teggi kenn sa xataa xadaw naa ba ñu mujji najta dii da mayu xulla na di raxati bépp aji doy ci pénk at bil mawridi ku daal li neex ci rawar waay ku naan ku tabe la laaj ñun loolu lañ ba dañ koo wa kulla jaadin këffi ak bépp aji dara loxo maxlul yedi te da ku ñu gëf kuñ naan xamul njëriñ jarul laaj ñun ñu bi kulli fannin ci gépp fànna xutin wuñ naan wóorut ñun ñu ngi ceewutee wa bi kulli maqsidin ak ci bépp jubluwaay fuñ naan xëpp naa dem ñun ñu ngi fa lor gi àgg na ñun mënu ñoo bañ leen bil jiddi ci dëgg in aj daa fekke muy jëriñ su yàggee foo xam ne ay waaraate déglu yu baax moo ko am njëriñ ah ñu waare déglu déglu yu baax rek su ko dee jox ñu dara comme ay borom xam-xam ñu dem rek ah la fekk du am njëriñ ñu demee ko bidda pala naxe na dara mën a dara jëriñ dara ci nit ñi mooy mën a ah ñu naxe rek li naj li ba ngir ilaxasi jëm ci cër mm-hmm. asadi bu daal di mar mm-hmm. parce que nit man da ñàkk a dund mm-hmm. te mel na que ni ñun ci rek lañ mën a dundee wanun fi daal ñu jeexal alombre dund bi ay seen ci dund an kadi bu daal di xat ndax da feeg deefu ñin nag da toppatoo suñu dund sooy boo dund bu nit wal mawtu dee nag même baax du ci gannaaw lii benn mar sa di nekk na ci fuglu waaye danaa ñaan ñu ànd ak xam nañu ne deere lañ fay xaar waaw fekk jotul nag duñ ko def waaye buy jot ñu def ko loolu ñun xam nañu waaw wal mawtu dee min ba'du ci gannaaw lii hmm. bil marsadi nekk nañ ci fuglu waaye dana ñaan hmm. illam yu faaji bu bette wut al yow ba tey hmm. faajaa mu bette fi xadin halle bette it la baaxoona ërëm it buñ ci àggee kenn du ko rom la góor gi wax na ko daal xëy la xeween yëf yi tappale la hmm. waaye dañoo àgg ci loolu hmm. fuqaa ne mën suñoo bañ leen hmm. fa qaala dal de wax la hoo ñaal ko alqaadi qaadi ji ne ko lillahi kiman ñaal na yàlla darru ka bëri sa soow bëri sa yiw <coughs> ne ko dëgg dëgg daal adi nga ku neex kàddu nga ku bëri loo xam nga fa maa lëf lu màgg en dafa neexal na mu nafasaati fii tabliti sa gémmiñ ku neex kàddu nga usloob bu neex ci ngay waxe wa waaxan dana ma héemu lakka ñaxaa la doon nga ma doy alaw la xidaawan bu duudoon huruj fii ka gu nekk ci yow su duut tappale ki ma njëkk gis ci yow su duudoon tappale ki ma njëkk gis ci yow te dalay te day yàqal nit nit su duudoon loolu doon naa la su duudoon tappare ki ma xas ba xam hmm. ci yow te danay yàqal nit ñi hmm. su duudoon doon naa la hmm. awa waaxal dana ma xéemu lakka ñaal la ku doon xéemu ci yow la law laa xi daawoon bu fii nga gu nekk ci yow waaye wa inni man nag la minal mundirin maa ngi ci wéy waal yi lakka ñaal la man nag du ku lay jay du ku lay seetaan li nga nekk te wóorul nii danaa la ci jaaj mooy wu lam lay jural du baax inzaar mm-hmm. mooy nit ku nekk ci lu bon mm-hmm. nga def ko ragal loolu lu bon lam nekk mm-hmm. lam ko jural booku la tafsir mooy ku nekk ci lu baax nga def ko xam loolu lu baax lim nekk bu ci saxee yi yum koy indi mu ne ko man nag duumu ku lay jay duumu ku lay seetaan li nga nekk nii te muy wóoradi boo ko bayut lam lay jural du baax mm. wa inni man la minal mundirin mm. maa ngi bokk ci way waa di lakka ñe mm. wa minal hadirin maa ngi bokk ci way wattandeku way ragal yi alayka ci yow tahit nag sa jaaxal na fala tumaakir bal fexeanteetati bal fexeelati bandahaa ci gannaaw tey alhakimina attekat yi dalal ay palaaxi tappale da jël ne da ko yóbbu ci barabu xàtteekaay nde ngeen mën a nag Xadija hmm. jëlee ca moom dara hmm. loolu moom gannaaw tey bu ko defati hmm. wattaqi na ngay teer sadwatal mutahakkimiina cong ak ñiy def tahakkum tahakkum mooy hukkumun bila dalil am na ñoo xam ne seen doole toll teye wuñ noonu am na ñoo xam ne seen doole toll seen yërmande toll tollu te ñu ne ko ci dajee ci melo wii rek man na laa def lu doyoo doyoo waaw am na ñoo xam ne seen doole toll teye wuñ noonu am na ñoo xam ne seen doole toll seen yërmande toll wu ñooñu nag koo ci dajeel mën na laa jaarale pour doy waar moo hmm? woote waaw na nga def jàmm fama lëf lu màgg anda ba neexal na mu nafasaati fii tafli di sa gémmeñ wa waaxan dana ma héemu la kañi àlla law laa xidaawoon bu duloon huruj fii ka gu nekk ci wa inni man la minal mundirin maa ngi bokk ci way waali la kañi àlla wa minal xadirin maa ngi bokk ci way ragal yi alayka ci yow wala tumakir bal fexe hanteetati baandahaa ci gannaaw tey hmm. alhakimina àttekat yi hmm. wattaqi na nga ragal sadwatal mutahakkimina hmm. coog nga ñiy def tahakkum mooy hukkumun bila dalil te nag xam ne ci àttekat yi ñu koy def dafa ci nit ñi ñoo xam ni seen doole toll seen yërmande du ko de toll am ci ñoo xam ne seen doole toll seen ak tey du ko de toll subaa nag jëfandikoo doole hmm. ci ku xam ne ku jëfandikoo doole ci kawam day jëkkaleku hmm. man na caa xam hmm. jëfandikoo doole te jotagutoon man na caa xam ku mel noonu nag kooku dafa laaj wattandiku fama kullu musaytirin te dit bëpp aji commandé yu xiil de xàcceel bul foog ne ku am bas rek mu ngi de balekat déedéet bul ne ku am bas rek mu ngi de li ma wax lu jar xam la wala kulla te du ci bépp jamono yusma wala dee fi dégg alxiilu wax te du ne rek wax ba génn ja mën naa nekk déedéet waaw du ne lu gi wax ba génn ja mën naa nekk moo tax daal njub mooy li wóor lii la ko xaadija wax xam nga waxi dëgg dëgg la faa dafa kóolarante ak moom xaadiji asseexu hmm. hmm. hmm. góor gi xale tibaayam masoorati yi ci topp xelaatam diisoom góor gi na ko li nga wax nii de dëgg mooy wax kilifa tegtal la ne liñ la xen mérito nga ko bu soobee yàlla danaa ko topp doo ma déggati fenn wala ti daay ak jajju xantal bi si suurati yi ci jaxase wan ko ne ko affaire laxase hmm. affaire luubal hmm. affaire tappale hmm. banaa ko tay tay ndax daase yi mu ci wax yëpp xam na wa fasala mu dal de facci an jihatihi ci wàllam dal de génne ca booru Xadija de dem wal xaturu te tat huruj xatru mooy huruj bu tat xattaarin yal ma dana mel xat min jafatihi ci jëxam waaye góor gi daal bi muy tontu xaadi hmm. soo ko xoolee da nga li muy wax moom sax gëmu ko hmm. moom gëmu ko hmm. moom gëmu ba xel di dund te nit na ñàkk a wax na alxaaris ibnu hammam xaaris ne ee falam ara gisuma ajaba du gën a xéeme min ha ci lii fi tasarif al asfar ci soppatuy tukki yi jamo safari mu ne dox naa ba tëhi mm-hmm. waaye lu gën a xéeme lii mm-hmm. gisuma ko ci sama dox bi mm-hmm. wala xaratu jànguma mislaha kemam fi tasaanifi l asfar ci daali fi téere yi mufrad bi sifrullah jàng naa téere yu bari waaye nag lu mel nii ko ci benn téere asfar jamoo safar mooy ay tukki asfar jamoo sifrin mooy ay téere baax na foofu beneen yoon incha